عليك waaw bu fekkee dëkk bi Sénégal nga ci jublu dama naan rek eh, lama waxoon la defaroon mag ñi démb mooy defar ndaw ñi tey mag ñi la leen defaloon te yitteeloon suñu sëriñ Mawlaaya Cheikh al Islam Hadj Ibrahim Niass dama naan wax naan ba ci ëpp mooy teggiin al adab ndax 1921 boobu indépendance amagul dañ ñoo noot koom-koom bariwul moomuñ suñ bopp ci lu bari tubaab yooyu fi nekkoon seen culture seen aada lañ doon jëfandikoo sëriñ bi bi mu jógee yàlla jox ko ndigal mu war a bind ci jamono jooja ak ba ilaa yawmil xiyaamati lim gis ne moo war a regle problème bi tey ak suba ak ginnaaw suba bis penc mu doon al adab moom la njëkk jël bind ne ruuxul adab dama naan roolu adab baax na li ci sëriñ bi wax lépp ñëpp ko war a xam mais pour pourquoi ca contexte boobu mu jël bigam rek ne ruuxul adab ne maa ngi taalif ci adab quoi contexte bu jafe boobu mënoon naa bind ci nu ñuy comment résister le le le colonialisme nangam nangam nangam mais pourquoi contexte yu jafe yooyu ak moom ak agent boobu mu tolloon mu jël rek ne teggiin mooy ne kon teggiin rek mooy régler mbir yi moo tax taalibeem yu bari kat ci téeréem yeeg correspondance am yeeg daan na leen taggee boroom xam-xam nangam nangam waaye daan na ko yitteel lool mu ne alfatal adib daf ko yitteeloon ci bindam yi te mag ñi kat la leen defarit ci ron baay radiyallahu anhu jàpp naa ne la ci ëpp mooy am teg yin ci ci ronam damay faral wax sax saxaabi yi sax li ëpp ci lii leen jëriñin ci kanam yonent bi am teg yéen nag bu yonent bi laajee ndax xam ngeen tax ñun allahu wa rasuluhu aalam maanaam kon maa ngi wax ne la seule solution wala boog sax ma bañ a exagérer solution daal yi ci solo mooy am yar am teggiin c'est quoi am yar ak teggiin man damay faral di wax ne naa koy wàcc émission yu bari teggiin nag mooy yem fa nga war a yem ci wax ak ci jëf ak ci xam-xam ak ci maqaama ak yooyu yëpp rek teggiin sous-préfet compétence yi ñu ko jox préfet compétence yi ñu ko jox. da ci yem bu ko dépassé rek ñu ne violé na la constitution maanaam ci wax waxal li nga war a wax rek yem ci booy waxit ci xam-xam waxal li nga xam bu jeexee nga noppi ci sa bopp laa dara rawatina nag keneen bàyyi ñes bàyyi ñes bàyyi ñes rek waxal li nga xam ci bàyyi te dama naan bàyyi ñes ñun liñ ci xam ci zahir bi ci ay téere mi kenn mënul cee wax ba jeex al adab ci ñun tey mooy ne nga wax loo xam ci bàyyi nettali lu wér ci bàyyi waaye jëfee jàngalee bàyyi yow ci sa bopp bañ gis ci yow niñ ko gis ci Sidi Ali Cissé na meloon Cheikh Alhaji Abdoulaye Cheikh Ahmad Dame Cheikh Ahmad Tidiane ba ci xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi na fi gën a yàgg kattan ak wér ak ci njabootam gi yëpp ak man damay wax ne tegg yi bokk na ca noppi ci lu sa yoon nekkut maanaa xam nga toog maa ngi koy nettali benn waay barki de mu ñuy waxtaan ci corona bi benn docteur ci ngodi ba maanaam ko xam nga fu mu ne comme rajo yi dañoo bëree ak média yi micro yi ku ne rek ñu tàllal la micro ne la luy sa xalaat ma ne man sax dama ci am jàngat man xam nga Barham su ma la tàllaloo microphone wala man nga tàllaloo microphone nema ma ministre des affaires étrangères bu bees bu ca Chine lu ci sa avis ban avis nga ci am loolu war naa ci loolu wax dëgg yàlla loolu lu ñu ko tuddee avis Chine gële man ma nekk fi ngodi ba ñu xool que méngoog seen euh, politique étrangère ñu jël benn doomu Chine man ñu tàllal ma fii rajo ci ngodi ba ne ma luy sa avis ci ministre le nouveau ministre des affaires étrangères bu Chine ma ne xam na ngeen baal ma sax yéen ñi liggéey ci média bi yooyu moytu ko man waruñ maa laaj loolu waruma ci am benn avis waruma ci benn avis bu ko defee nag buñ boo demee ba dajee ko xam ne laaj na la ko yow yow wax dëgg yàlla sama yoon nekku ci aw ma ci avis avis day doon loo dund lu am droit xam ci tuuti loolu ci ngay mais wax dëgg yàlla euh, donc maa ngi maa ngi dénk sama bopp dénk ndaw ñi gàtt mooy teggiinu waaye nag rawatina tey li xew nga xam ne waxukaay yi dañoo bëri siiwalukaay yi dañoo bari ñu def attention ci xam ne kenn ku nekk li ngay wax dinañ la ko tegal benn par benn te li ma wax rek ci benn kilifa ma seetaan ko mu naan corona amul te ma gis ca saalam ba ma nga amee gel ma nga amee marcel draxasu léegi léegi nit ñi seet si ko bëkk néeg bi na leen sëñ bi dafa jàpp te moom mu ngi wax ci biti naan leen corona amul am koy gëm ba respecté wuñ les mesures barrières xam nga sëriñ boobu it am na am na xam nga laa koy xam am na am na am am na am na responsabilité bu rëy bi may tëjee it mooy ndaw ñi nañ seet ñi ñuy jox seen bopp. ñi ñuy jox seen bopp nag alxuraan wax naa ko léegi moo ñu ko tënkal wattabi sabila man anaaba ilaya sëriñ bi la gën a jege yàlla rek jege yàlla nag nu ko nit manifesté woo lu ëpp ñu gis la ci charia bi nga tënku ci ni ñu gisee xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi di yoot di ñëw di julli si léegi-léegi mu te mooy xalifa mu julli ci bitti jumaa ji lal basang sak naa ñu ñëpp gis nañ ko lal basang ci bitti jumaa ji gis ko muy jàngale Fathul Baari yi ci buntu këram di firi alquran waaw loolu loolu balaa ñu naan sëriñ bi lii ak baatinam beeg nangam déedéet dañ koy gis mooy waaxu di julli ji di julli ci bitu jumaa ji te mooy xalifa Baye Niass te lu mu wax ñu def. Euh, loolu daal buñ ko defee delluwaat ci jàng yi ak it bañ yàkkamti moom lay tëjee bañ yàkkamti innal mun batta laa ardan qataa wala dahran abqa war gileem gi gileem gi am kattan te mooy moyens yi ñu am ni muy labbali rek labbali rek bëgg gaaw a àgg ci destination am gileem gi fakkatalu daanu mu njëkk daano daanu gileem gi daanu njëkk a woo mu dee yàgguñ fa njëmoon gileemam dee na innal mun batta la ardan xata wala dahran abqa yàkkamti mën ngaa ñàkk sa gileem mën ngaa bañ yegg fi nga jëm kon nañ nañ nañ nañ def ndànk rek euh, dal am yar ci yar ci wax am yar ci teggiin ci kanam sëriñ bi ci peeyu Mawlana Cheikh al Islam te peeyu Mawlana Cheikh al Islam mu ko waxee du Medina rek foo mën a nekk di mbubboo Baay ñu wër la nga takkay fotoy Baay am melokaanu Baay fu gàmmu ga mën a nekk xamal ne yaa ngi ci peeyu Cheikh Ibrahim da nga war am yar ak teggiin foofa loolu mooy li may dénk sama bopp di ko dénk mboolem taalibe yi.